addiyaay baayu Papa Ñaas waaye ñoo leen ñu dem jële ña seen siyaare ji te yóbbu addiyaay baayu Papa Ñaas ñoo leen ñu dem siyaare ji jële ña seen te yóbbu addiyaay baayu Nuuru Ñaas bismillahi rahmaani rahim الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فجعله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأمينا برسالتي شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل أنا رحمة المهدى صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السادة والسيدات ضيوفنا الأجلاء سماحة الشيخ الخليفة أبو الشيخ عمر نياس صاحب الفضيلة إمام الأكبر العالم العلامة السيد محمد نور جس والوفد المرافق لهما من مدينة كولا معالي السيد رئيس القرية العمدة كباتوي صاحب الفضيلة إمام الأكبر لجامعة كامبل السيد مختار جوي السادة والسيدات حفل الكريم أهل جامبل الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحت غاية الفرح وسعيد جدا بحضوركم معنا في هذه الحفلة المباركة ونتشرف بإلقاء محاضرة بعنوان أخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فإذا مكوي جنابون يسنتي يالله di julli di salmal si sangu-sang yi di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu sëñ di alxalifa Pape Cheikh Omar Niass di nuyu imam Mohammed Nourou Niass ak mbooleem délégation bu ñu àndal bàyyi ko Kaolack ñu ngi leen di nuyu leen ziar di beesal suñu kóllëre ak suñuy ñu ngi leen di tatagal ak mbooleem délégation ba ngeen àndal ginnaaw bi ñu leen nuyoo dañuy nuyu borom dëkk di Keba Coy ak imaam Maxtaar Coy ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñëw si ñu waxtaan bi nga xam ne ni bëgg neen ko di waxtaanee si yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne nii loo xam ne la duñ koy misaal dafa mel ni géej gu amul tefes ñun ñu nekk ñu tuuti ci waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi ay borom xam-xam ñu ñëpp seedeel seen xam-xam ñëw neen jaar ci àdduna bi daf si seen waar ndax yonent bi sallallahu alayhi wa kenn mënul misaal kenn mënul koo natale daf teen mission ba jeex di tagg yonent bi di wax si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax Bushayri ba muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax lu ne mu tagg ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee. ba mujj gi mu xam ne fii kenn mënu ko jeexal mu ne fa mablagul ilmi fiihi annahu basharun wa annahu xayru xalqillahi kullihimi kon kooku ñun tuuti neen si waxtaan si moom mais dañuy jéem ak ndigal boo xam ne bii tamit jox neen conférence bii pour ñu def ko moo tax ñu mën a am di di wax si yonent bi sallallahu alayhi wa koo xam ne nii ay borom xam-xam wax neen si moom bind neen si moom ba luñ bindoon kenn mënul koo jeexal boo xoolee siire yu bind si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn xamul nu mu toll ñu bëgg a waxtaanee jikkoom di jikkoo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ xoolee jikkoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne nii yàlla subhanahu wa taala mum koy tag tagew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si askan tagewul ko si rafetayam tagewul ko si len mais jikkoom lako tagge wa innaka la ala xuluqin azim jikko jodi bi ñu taggee yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu bu see waxtaan mu mel ni yàlla boo xoolee si alquran ji mu ngi tagg ñi nga xam ne nii ñoom la tànn mais comme nu mu taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ku mu ko mas a tagg buñ xoolee si ibrahim ba yàlla di wax si moom inna ibrahima la xalimun awaahun mubin moom la ko yàlla taggee bu ñëwee si yonent yàlla Ayyub yàlla di ko tagg di wax si moom lu mu ko seedeel mooy benn si jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna wajadnaahu sabiran ni'mal abdu innahu awwaab mooy yeneen yàlla ay ku jàng xisaam da nga gis nu ko yàlla na ko woon mu muñ moo tax yàlla ba mu ñëwee di ko tagg muñ googu la ko seedeel ak muñ googu benn la si jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax boo jàngee siiratu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da nga gis coono yu mu at jànkontee dekk makkatal mukarram ay mbokkam di ko fitnaal di ko nattool te xam ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa lii muy wax kenn mënu koo teggi mu leer comme jant bi fu waay mën a toll di ko gis mais dañ see dëgg seen tànk ne di nga gëm yonent bi muñ lool ànd ñoom malgré lu mu daj lépp di muñ kon te benn la ko yàlla di seedeel di ko tagg lu mu ko taggee innahu kaana saadiqal waadi wa kaana rasulan nabiyya muy seede si moom ku loon ay rendez-vous am bu la ko joxaat daf koy matal buñ ko waxee deux heures dangay ñëw fekk ko fa kon jikko yooyu nga xam ne ni ay yeneen ñoo ko joxe ñoo ko doon melowoo ñun ñii war nañ see roy conférence bi 17 heures leen wax ne leen koy commencé war ne na roy si jikko bi nga xam ne nii mooy Seydina Ibrahim Seydina Ismaïl moom la yoroon sadiqal waadi wa kaana rasulan nabiyya te yooyu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la jikko woon boo jàngee siiraam da nga ko fa gis kon jikko yooyu nga xam ne nii moom la yàlla taggee ay yonent mais boo ñëwee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la ala xuluqin azim la ko tuddee la ko taggee kon xuluq yooyu taggeewuñ ko kenn suñu njëkk suñu mujj alquran boo ko yëree doo ko gis suñu ke tagg kenn si jikoom ku dud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yow yonent bi ñu ngi taxaw si sa maqaama yu kawe yooyu di jéggalu bu ñu jumee si suñu melal suñu waxtaan si yow dana jafe ndaxte yow ab géej nga bu amul tefes ñun ñi nga xam ne nii suñu xam-xam bëriwul ñu bugg wax si yow kon bu ñu juumee si sa jikko yooyu nañu jéggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bugg a benn si jikko yooyu muy al amaana يونتي بي صلى الله عليه وسلم بو جاوي سيرام نيغول بان يونيكو ريك برساله نيوال بو مسوك دي نيك علي امين مي بو جاوي سيرام دا ngay gis يونتي بي صلى الله عليه وسلم مكه لا جودو فوف لا يرو mu nek fa nek ku djub nek ku yaru bo wa mak kep ko xamne ni am nga looy dénkaane si yonent bi sallallahu alayhi wa ngay ñëw nga dénk ko boo ko ko dénkee boo demee ba soxla ko ak waxtu boo ko soxla lu mu jafe-jafe lu mu ko ko dénkee moom nga koy ñëwee noonu nga koy fekkee mais dénkaane bu gën am solo boobu mooy risaalaam bi mooy amaana bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe mooy bu nekkoon ku ragal bu nekkoon koo xam ne amul fit bu nekkoon koo xam ne ni intérêt moo ko tax a ndax ndaxte boo xoolee waa Quraysh dajale leen woo leen ko si baayam Abu Talib nga ne nii. moo ko yar gannaaw ba maamam génne àdduna waa Quraysh dajaloo ñëw si moom ne ko dañoo bëgg nga wax ak sa doomu mbokk mi bu fekkee ne lu muy woote nii alal moo ko tax a jóg ñu dajaleel ko mu nekk ku gën a alal si Makka bu fekkee ne jigéen moo ko tax a jóg ñu xool ku gën rafet ñu takkal ko ko. mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu taxu koo jóg daf ko jox amana amana bobu da fay laaj ay sacrifice yo xamne ni nii dana ko matal ba bay taxam ñewé nekkal ko lan la wa quraysi wax mu ne buñu ñu jëloon jant bii te ko sama jor jël wer wi te ko sama chamoy ne ma bàyyi li ma ne duma ko bàyyi bàyyi taxam xam ne kii lu mu nekk caaxaanu mu ne ko damal damal nga woote ci looy woote malgré gëmutoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais ku nekkoon ak moom la di ko jàppale ba Quraysh ku bugg a bugg bugg a dal si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga xool si moom kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amaana bu mag bu mu gën a yore mooy risaala bi di islam xam ne nii. daf na si ay sacrifice yoo xam ne nii bu nekkutoon ku ñeme bu nekkutoon ku mën mën a muñ bu ndaxoon bu nekkoon koo xam ne nii intérêt moo ko tax a jóg muy intérêt personnel lu ko noonu l'islam bi du yegg fii mu yegg si mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa sacrifice ñu daf ko lu ne di ko toroxal di ko di ko di ko di lor ñu ko gëm mais loolu taxul mu bàyyi ndaxte dafa nekk koo xam ne nii al amin la boo ko joxee risaala daf koy jaral sacrifice mu jottali ci risaala boobu nga xam ne nii moom la war a jottali dafa nekk amin ba nga xam ne nii boo ko dénkee sa alal nu mu ko ko dénkee woon moom nga koy fekkee dafa nekk amiin ba risaala bi ñu jox ko nekkul ku si nay wa ma huwa ala alxaybi bi doniin bu nekkoon koo xam ne nii bu ko wax yi ñëwalee bu ko jibril ñëwalee bu xool lu mu fi war a war a wax ak saxaabaam yi mu wax lu ko fi neexul mu dindi te am na ay aaya yu nga xam nii dafay ñëw di dal si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waroo def nii nii nga waroon a def mais bu taxaw bu mais bu fekkoon ne nekkutoon al amin aaya yooyu kenn du si jot da koy nëbbu denc ko ba kenn du ko gis mais dafa nekk al amin kon amaana googu yonente bi sallallahu wa sallam yoroon dafa war a nekk royukaay dafa war a nekk loo xam ne ni moom leen war a dund ka ay jullit buñ ko doon dund yaakaar naa duwal islam yi passé nii fii ñu toll mais da ngay gis ñu far la daf la responsabilité looy daf di profito nan ngay sàccee ay milliards dem dugal ko kont bu buñ la wàccee nga dem lekk ko ana amaana foofu dangaa jàng jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa foog nan ngay wootee ñu fal la président nga ne buñ ma falee dinaa def nii dinaa def naa ñu la sa population bi nga bugg leen a def ay jaam ñu ngi nekk si jamono boo xam ne nii politiciens yi ñu ngi dugg mais war ne na lam jàngal leen al amaana benn si benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom si ñoom kenn si nit képp koo xam ne nii déposé nga candidat war nga dem ñi jàngal la jikko yonent boobu benn si jikkoom yooyu muy al am al ba tax na jaroon na nekk na jaar na si ay métit yu nekk mais taxul mu wor ñi nga xam ne nii mooy umma bi kon yonent bi sallallahu alayhi mënuñ koo fay amaanaam bi buñ xoolee waa Quraysh ba bi wa sallam nekkee si ñoom nekk si trente cinq ans waa Quraysh yi benn ñuy tajjib kaaba gi ñu tajjib kaaba gi xabaay yi du nekk foofu yëpp ñu séddale leen liggéey bi ku nekk ñu ne la yaay def lii ku ne yaay def la ñu toj ko ba war liggéeyaat ba toll si teg hajarul aswad te waa Makka dafa nekkoon sharaf si ñoom kuy teg hajarul aswad boobu si palaasam ba ñëwee bu dem ba nar a problème ba mu nar xeex si seen biir ñu xool nan leen amee solution boo xam ne ni xeex du am ñu xelaat seen biir. ñu ne ku njëkk dugg si bunti jàkka ji d'accord leen mu waate ñu bañ waxee loolu yàlla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ba mu duggee ñoom ñëpp ñu yooxu haza al amin haza muhammad radina bihi mu ne kii mooy muhammad gërëm neen si ay atteem ku wóor la ku ñu ku ñu wóolu la si ay ay ay ay ay waxam ba mu defee lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na leen dem leen ngeen indil ma benn liñ koy waxee darab comme daaru darab ñu teg fii xajarul aswad xabila bu la nekk mu ne na nga jàpp si ceet li ba ñu yóbbu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëral xajarul aswad bi teg ko palaasam ñu am solution ba kenn tuurul deret mais bu taxutoon a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deret dafay tuuru kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi gis ay ay jikkoom foofi lamb rek da ngay gis ba jikko jooju moo tax mu tagg mu takk sayyidatuna Khadija radiyallahu anha boo jàngee siira wax naa leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam négul ba risaala dikkal ko mu soog di nekk al amin négul ba risaala dikkal ko mu soog di يو يو يولو مي جيكو بو خامنني موي بامي واخ ادبني ربي فاحسن تاديبي خمنا لول مو جابو موتاخ لي جيكو يي ني واخ ني ييب بن كاي واخ بوبو ينتو صلى الله عليه وسلم امول كارتا برساله بيكو ديكل موتاخ امانه بوبو سيدتنا خديجه رضي الله عنها غيسون سي موم موتاخ مو دم moo tax sayyiduna Khadija radiyallahu anha ba mu gisee jikko yooyu si yonent bi sallallahu wa sallam wa sallam mu ngi am ñeent fukki at yonent bi wa sallam mu ngi amoon ñaar fukki at juróom mais ay jikko yoo xam ne nii gis na ko si yonent bi sallallahu wa sallam te yu am na xaalis borom alal yaa ngi fa mu bàyyi ñoo ñëpp te boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul dara kon yooyu ay jikko yoo xam ne ni moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna Khadija radiyallahu anha ko pour mu takk ko kon ñu taxaw foofu timis bi jot na buñ jullee ba pare incha allah ñu jéem a yeggali waxtaan bi ñu ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekkoon si jikko ji jikko si benn si jikkoom yi bi nga xam ne ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ko jikkoowoon avant risaala di ko ñëwal muy al amin wala amaana nekkoon koo xam ne nii dafa nekkoon ku ñu wóolu ñu ñëw si beneen boo xam ne nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si amaana boobu ñu wax ne moom la yonent bi jikkoo woon mooy bu ñu xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu ma ko waxee woon dafa nekkoon makkatal mukarram foofu la juddoo foofu la yaroo ñu di ko dàkkante al amin ba képp koo xam ne nii am na lu muy déggaane day dem dégg ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la nekkee ba ñëwal ko ñu taxaw kanamam ne ko li ngay woote nii kenn ko fi gëm mu jaral ñuy def lu ne ba ndigal ñëw bàyyi ko ci boromam ne ko mu gàddaay bàyyi ko Makka dem yashriba ba ko yonent bi ñu tuddee ko Madinatul Munawwara yonent bi ba muy dem amul kenn ku ko yëg ba muy gàddaay amul ku ko yëg lu dul Ali ibn Abi Talib ak Aboubacar Siddiq ak waa kër Aboubacar mais yonent dafa xam ne ñu ko ñu ngi ko ay dénkaane yoo xam ne nii waa Màkk ñu ko ko yoreel ñu nga xam ne nii ñoo ko buntu xataal ba yonent bi alayhi wa boromam jox ko ndigal mu war a gàddaay mais ndénkaane yooyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yóbbaalewul ko ndénkaane yooyu dafa jox Ali ibn Abi Talib mu nekkoon sacrifice bu mag si moom ndaxte ba ñu wootee ñoom waa Màkka ne Muhammad mii foog ñu sàkkal ko pexe guddi googu bañ dëppoowee ba Abu Jahli waxee ne nañ yebal xabila bu nekk yebal kenn góor si ñoom buñ demee ñu dóorandoor ko buñ paree te mbokkam yi lu ñuy man lu dul laaj fidiya ñu dajale waa ñun waa Makka yëpp dajale jox ko ñu pare si Muhammad sallallahu alayhi guddi googu ñu waroon ko rey la alim na bi Talib dem fanaan ci lalu yonent bi sallallahu alayhi bam fay fanaan xamoon na waa Makka ñu ngi jóg pour rayant bi sallallahu alayhi wa mu nekkoon sacrifice bu mag si moom ndax bakkanam waroon na see yem mais yonent bi tamit xam na ne kii bakkanam mën naa yem si lii mu koy dafloo mais dafa nekk al amin comme nu ma ko waxee ndénkaane yooyu ku nekk mu war a dem si moom na la lu ma dénkoon mu ngi nii mu ne ab Ali ibn Abi Talib yow yaay dox loolu bu ma demee waa Makka yi boo xëyee ku nekk lu mu la lu ma ma indi woon demee na nga ko ko jox kon loolu dafay wone na yonent bi sallallahu alayhi wa dafa nekk al mais bu nekk toon al amin dénkaane yooyu yëpp lay bëgg a bëgg yóbbaale te boobaa waa Màkk ñooy ndax ndaxte ba muy génn kenn yëgul ko beneen si yooyu tamit dafa nekk al amin ba ay noonam ñi nga xam ne ni ñoo leen ko lor si biir makkatal mukarram di ay borom mi alal di borom mi daraja ñoo leen ko lor ñoo ko seedeel jikko boobu si moom moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ xoolee si tafsirul quran si tafsir al qurtubi ba yem ba borom bi subhanahu wa taala di wax wa xatama ala sam'ihi wa qalbi mu ngi wàcci nee na mu ngi wàcc si Abu Jahl, Abu Jahl ku jàng histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga gis nu mu meloon da nga gis nu mu songe woon yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi tuddoon Omar ibn Hisham Omar la tuddoon ba tax na yonent bi benn jour muy ñaan ñaari Omar yooyu muy Omar ibn al-Khattab ak Omar ibn Hisham kenn si ñoom tuub. mais sens bi mu ngi dem ñaan gi yàlla mu ngi ko nangoo si Omar ibn al ndax ñoom ñaar dañoo nekkoon ay boroomi boroomi doole boroomi kàttan nekkoon biir màkk googu nekk fa ay kilifa di sonnal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais dafa nekkoon tamit boroomi xam-xam ndax abul hakam ku xereñ la woon waa Màkka nekkoon si ay situation moom dañ koy woo mu génne leen ci bañ di ko dàkkante abul hakam mais ba yonent bi alayhi wa sallam ñëwee mu koy lor di ko fitnaal di ko ko lor di ko buntu xataal si leen ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dindee dàkkantal abu hakam bi di ko dàkkante abu jahal ndaxte moom xam ne ci ay finde yu wor na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam lu muy wax ni alquran ji mo andi du lu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxal boppam mais dafa ñëwoon di lor yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba khasim di doomu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gaño mom mo taxaw na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day nekk ko kooku ko xamne ni da fay dog buy faatu كن دوت كو دغتي موم مو وخون نه محمد صلى الله عليه وسلم كبوتيرا بون كو وخيو تي لانغ عرب موي كو خامن ني امول دوم يو خامن ني داكاي باي غيناوام با بودي رك ني فاتي كو با يونتي با القران ني نيوي لا ان شانئك هو الابطر موي ابو جهل ابو جهل مومو مو سيدي سي يونتي صلى الله عليه وسلم هو امين kañ la ko wax benn jour mu ngi wër kaaba gi ci guddi mu tasee faak Walid ibnul Mughira Walid ibnul Mughira tamit ku nga xam ku jàng siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis moom tamit mu bokkoon si ñi nga xam ne nii ñoo doon attaqué bi sallallahu alayhi wa di ko Walid ibnul Mughira moomu moo doon bàyyi si Xaalid ibnul Walid Walid mi مملا قرآن بواتي نان زرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا بمجير موي كو خامني على لا ماغي دا فا بري وون علال بري اي دوم لول ييب دا فكو جيلون دي سي خيخ صلى الله عليه وسلم بن غودي ابو جهل ген daje si kaaba gi Walid ibnu Mughira moomu ba muy wax moom Abu si yonent bi sallallahu alayhi ne maa ngi seede si yàlla ne xam naa ne moom aji dëggu la moom Muhammad si la Walid ibnu Mughira waxee noppil doy na mu ne ko Muhammad mi afa ba mu nekkee xale leen ko wooyee al amin aw saadiqu al amin bu dëggu la bu wóolu la mu dem risaala ñëwal ko ñi taxaw na ko tuddee al kon yonent bi sallallahu alayhi nekkutoon koo xam ne nii dafa nekk ba risaala dikkal ko mosoo di ko jikkoo mais ay noonam ñi nga xam ne ni ñoo ko sonnal si biir Màkka ñoo ko seedeel lii kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jikko bi buñ ko ci royoon mooy dund islam bi wala nation bi daneen dund dund boo xam ne nii dund bu yàlla gërëm la ñëpp nekk ci jàmm kenn du luubal loo xam ne nii dañ la koo dénk mais loolu loo bëri na ci responsabilité yi léegi kuñ ci jox ndénkaane mu luubal ko ñi damaat ci keneen koo xam ne nii mooy abu sufyaan abu sufyaan ba mu nekkee biir makka avant muy gëm yonent bi si xa makka si la dugg si lislaam mais avant boobu daf laan sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko lor di ko buntu di financer ay nit ñi koy lor ba yonent bi sallallahu risaala dikkal ko moom risaalaam bi ñëpp la ko yàlla yónni mu commencé bind ay risaala di ko yónnee si buur yi ba mu yónnee risaala si buuru ruum di Harqal mu woote si njiitu Makka yi ndax foofu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dund mu nekkoon buur bu yeewu ndax balaa bu liiree lisaana ñi koy woo si si l'islam dana xool ñan ñoo dëkk kii di woote l'islam ba xam lu muy woote dëgg la mu woo Abu Sufyaan mu woo Abu Sufyaan ba mu wooyee Abu Sufyaan Abu Sufyaan ñëw seedeel na Muhammad sallallahu alayhi wa mi mu laaj ko lan lay lay woote mu ne dafay woote julli ak. kóolute ak sarax ak jokku mbokk loolu la yonent bi sallallahu alayhi woote ba ko Harqal laajee Abu Sufyaan mu wooteel mu seedeel ko ay jikko yoo xam ne ni lu mu margare mu bañ yonent bi sallallahu alayhi wa seedeel na ko ay jikko muy bokk na si nekkoon koo xam ne ni ku wóor la kon jikko boobu jikko bu am solo la ñu kon continuer ci beneen jikko waaw kon sëñ bi joxe ndigal mu ne amaana bi rek doy na sëkk euh, ñiw yemale ko fii di sant yàlla bam ñu xawlelee ñu toog ak ay borom xam-xam di ñu wéttali taaral jotaay bi lool sëñ bi ñu ngi kontaan si jotaay bi di nuyu rek comme sëñ mu koy commencé wax si ba ñuy commencé sama yaay daara di xëjaan ñu ngi koy ndokkeel da ko sa doom ju mënoon nelaw ja alhamdulillah mu lay ndokkeel di la ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu fay la di ñaanal di ko ñaanal bu baax ndaxte sonn na si man bu ma demee bay toog fii di wax joué na rôle bu mag ak mbooleem sëriñ bi toog fii du ko dalee sa xalifa bi ba mbooleem rakam yëpp ñii jàngal neen ma ñii dëkk man dëkkin boo xam ne ni dëkkin bu mucc ayib la kon ñu ngi leen di ñaanal di leen sant di leen gërëm di wax ne mënu ñëw fay li nga xam ne ni daf ngeen ko si ñun ah, di sant tamit sëñ bi ah, Safiou Niass moom bu ñëwee càmmet day day summi mbubum sëriñ bi ñëw nekk taalibe wala nekk doom si doomu dëkk bi ñu koy sant moom tamit di ko gërëm vraiment bay baas bi commencé suba noonu la fi nekk ak ñun di liggéey di liggéey di liggéey ba ba lu mu fi mujj a def dafay ñëw bokk kon ñu ngi koy seede ci loolu si moom di sàkku si yow nga ñaanal ko vraiment mënuñ ko fay kon ñu ngi yemale foofu waxtaan wi di sant mboolem ñu fi teew di leen sant di leen gërëm. vraiment kontaan nañ seen teewaay yéen ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di joxe kàddu gi rek di leen wax tullu am wa antum bi xayr asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu addiyaay ñu dem ñe ji te ñoleen ñu dem ziyaare ji jëleen ña seen te yaaku addi yaay baay nooru ñaar